safoo di leen tiitaloo di leen ngand ngandaloo saa su ne fii lay xewee si L'Evidence TV ah man seen xarit seen doomu ndey bale taxaw ah may def journalu bale waaw ma ne nag di leen abonné wu di partager di commenter saa su ne fii lay xewee fii biir L'Evidence voilà tey sama journal tey fan lay ñëwee sama journal tey ah làmb ji waaw damay dem ci làmb ji démb gis ngeen làmb ji lu fa xew démb gis ngeen stade stade ba daa fa del démb ah ñëpp di seetaan ñëpp bég ñépp kontaan waaye amateurs yi dese nañoo kontaan bu baax a baax à 100 pour cent waaw ndax làmb ji ku ne gis na ko Lac de ñëw na ak ay mbokkam sita ñëw na ak ay mbokkam waaye kenn du Siteu macha allah kenn du Siteu Siteu ñu ngi lay ndokkale Siteu ñu ngi lay encouragé sita ñu ne la bul bàyyi Siteu fu nga teg sa tànk foofu la a ah, Siteu ñëw na si coup de grâce de Siteu mën a si na si coup de grâce Siteu amul benn mbër bu ko xeebati amul benn mbër boo xamante ni mën naa xeeb Siteu amul ndax Siteu ah Lac de la Lac de Guiers la Lac de Guiers bëri naa ku ne Lac de Guiers bëri naa Eumeu Sène bëri naa. Yékini Lac de Guiers bëri naa Bombardier Lac de Guiers bëri naa Modou Lo Lac de ku dem ba euh, Lac de ku dem ba daan Yékini ku dem ba daan Yékini nga xam ne kooku champion nga ku dem ba bëreeg Yékini daan ko nga xam ne kooku ndaanaan la tey boo demee ba jël ab xale bu ndaw ab boy bu ndaw booy bu tuuti booy bu keneen daan nga bëreeg moom vingt vingt minutes munoo daan goos bi vingt minutes munoo daan boy bi ah nga xam ne booy bi euh, Siteu jàmbaar la. Siteu mën a champion nga Siteu fa nga teg sa tànk foofu la Siteu sa yaay da laa ñaanal Siteu sa ndey da laa ñaanal barki yonent bi ah Siteu man man dama laa man man dama laa fan man man dama laa fan waa jàmm gën ñëpp gërëm nan la jàmm gën ñëpp set nan la ah yow yaay roi de roi des arènes de jàmm gën roi des arènes de jàmm yow la ah jox nañ jox nañ jox nañ euh, la de guerre waaye billaa wallahi taala daa mel ne yow yaa am victoire daa mel ne yow yaa am victoire ah nañ la gërëm na la allez Siteu bul découragé de fu nga teg sa tànk foofu la làmb jaa ngi sa kanam làmb ji mu ngi sa kanam xoolal mbooloo mi li nga indi bu si stade kenn mësu koo gis stade bi bu demee ba fees Siteu a ko feesal am na ñoo xam ne Siteu mu lay indi si làmb ji am na ñoo xam ne bàqu Siteu mu lay indi si làmb ji am na ñoo xamante ni non ambiance Siteu loolu xoola jar na ñaari junni jar na ko Siteu maam yow yàlla moo la may nit bu la yàlla na mayee na danga koy nangu Siteu yàllaa ko may ndaw ñee ko bëgg ndaw ñee ko saf ndaw ñee ko tiitaroo moo tax lu mën a am day toog waxtaan ak askanam waxtaan ak waa jàmm gën Siteu xale bi lépp cat yàlla na la yàlla na la cat seexlu yàlla na la cat seexlu maa ko wax yàlla na la cat seexlu waaw su ma jegee foofu damay dem ah euh, Ousmane Sonko daa waroon a def lan conférence de presse xuma daa waroon a wax ak askan bi waaw Ousmane Sonko démb daa euh, si biir prison bi daa bëggoon a wax ak euh, adduna bi waroon a wax askan bi waroon a wax ak waa Pastef waaye daa mën a mujjut am <clears throat> dañ ko koo tere mujjut am waaye. envoyé na benn message euh, ne léegi comme moom mënul dem comme moom mënu buuse comme moom mënut a génn comme moom mënut a wax ah, léegi neena euh, kenn lay jiital mais Bassirou Diomaye Faye nee na Bassirou Diomaye Faye leen jiital waa se waa Pastef yi euh, nu ko xamee di waxee population bi nañu parrainer Bassirou Diomaye Faye ñu la ko waxee nii nii la ko waxee nañu parrainel Basirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ko ko wax moo wax loolu kon Ousmane Sonko nee na nañu parrainel Basirou Diomaye fay ah euh, man du ma jaaxal parrainage bi lu si des bëriwul décembre bii la war a jeex ah comme ñoom nee nañ tey si altine gi tey si lundi gi lañu ñu commencé parrainer soxla nañ ay 7 million parrainage 9 million 12 million wala wala dafa bëri. ay ay 4 millions rek waa soxla nañ 4 millions parrainage ak yooyu noonu pour gars yi parrainel Basirou Diomaye Faye séeréel bi <laughs> ay Sénégal moo neex Sénégal a neex Sénégal moo neex Sénégal chaque jour ak histoire Sénégal chaque jour ak lu bees Sénégal chaque jour ak xalaat yu bees Sénégal chaque jour man man politique yi politique bi léegi dama ko jàppee comme Real Barça ay Atlético ay Madrid ay Real Madrid yooyu man loolu laa jàppee politique bi loolu laa jàppee politique bi politique man loolu laa ko jàppee damay jàpp ne man dañoo nekk si championnat wala ligue des champions man mënu ma comprendre politique Sénégal xaw ma man comprendre ma loolu quoi ba tey comprendre ma ah ah waaw euh, fii laa yem ak yéen di leen dox ba suba incha allah Euh, le 23 tombeek euh, alxamis euh, dañoo war a dem bayti bayti waa dañoo war a dem bayti ah sëñ Malick Absa ñu gën koo xam sëñ Ilimaan ah ñoo ndongaa ñoo woote bayti ah di sargal ñaari maamam di sant ñaari maamam sëñ Adama Gueye ak maam Serra Fall ah ah bayti le 23 man bale taxaw maa ngi bayti sama sëriñ sama sëriñ sëñ Ilimaan waaw maa ko wax. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant euh, Binta Mbaw Binta mu Serigne Saliou Binta taaliba Serigne Saliou Binta mu bëgg Serigne Saliou Binta euh, moom Serigne Saliou day jaay ay parfum yu neex ay lokko la ñu neex ah day jaay anguro day jaay détail senegal ba Europe ba Italie Binta siyaara naa la bëgg la du la jox sa wàccuwaay ba suba ak jàmm allah.